tey ñu fas yéene dikkaat ak yéen fii ci benn jotaay bu am solo boo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy kuréel liggéeyal ku tedd gi ñoo ko baaxoo amal at mu jot di ko waajale màggal gi ñu di ko def saa yu màggal gi jublusee di fas di ci waajal màggal gi di ci def ay concours ak alxuraan ak xasida ak ci aju ak yu bëree bari baaxoo woon itam saa yu jublusee ñu tànn benn thème boo xam ne moom la ñuy waxtaanee ci barab yu bëree bari yu wuute ci euh, waxtaanukaay yëpp ngir ba dee jéem fa jàllale message boo xam ne moom la ñëpp yi jàpp ba déwén incha allah ngir waajale ko màggal gi daaw ñu defoon ci bu am solo jëloon thème bi di xidma waxtaan ci waxtaan yu am solo itam ren ji tamit ñu tànn thème alhimma fas yéene ko yaatal waxtaan ci ci ay tomb yi faccantikoo fas yéene koo leeral leeral lin woo xam ne buñ ci noppee incha allah ñëpp dinañ ci am benn dégg-dégg wala boog benn xamin bo wu yees wu bokkut ak li nga xam ne moom la ci déggoon euh, ñu feggoon nag ci waxtaan wi suñu mbokk Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ne moom moo jiite commission culturelle bi ci kuréelu liggéeyal ku tedd gi ak benn membre ci commission bi mu di Serigne Ibrahima Kebe kenn ku ci nekk itam am loo war a jàllale ci waxtaan wi inshallah dinañ ko leral ba buñ ñëwé kenn ku ci nekk dana xam lim ci wara indi bu dee sëñ Fallou Mbacké mi nga xamné ne jité commission culturelle bi dañu ñu lan moy gi ak lan seni seeni liggéey ak bis bi nga xamné mom lañu taxawal di Rabian Safar lan ak lan moko taxajuk ak lan ak lan lañ fay amal inshallah buñ noppé nak dinañ jox sëñ Sawru Kebe mi sëñ Ibrahima Kebe mo waxtanal ji ci mawdoo bi nga xamné mom lañ ren muy alhimma wala himmatul uliya leeral ñu li nga xam ne moo ci am naka la doxee ba egsi ci ñun ak naka la ko Seexul Xadim daan daan daan dunde ak naka lañ mën a def ba himma boobu nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaanee nan lañ ci mën a jariñoo bu baax a baax kon dañuy tàmbalee ci Sëñ Fallou Mbacké jox ko moom mi nga xam ne moo jiite commission culturelle bu commu kuréelu liggéeyal ku gi mu fas yéenoo leeral lan mooy kuréelu liggéeyal ku gi ak lan mooy bis bi nga xam ne moom la ñuy amal door ñëw nag ci Maodo bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee te Sëñ Sawru Kebe fas yéene ko wax incha allah. kon Serigne Fallou dañ lay jox kàddu gi nga jàllale lool noonu. kuréel gi nag liggéeyal ko kuréel liggéeyal ko tedd gi mën na laa wax ni li ko tax ñaar lekk ñaar doon mooy isaar ñaangalam Sëriñ Tuubaa jàng ak jàngale te loolu bu ñu ko xoolee dañuy xam ni moo fi indi woon moo leen yonent bi fu mu si jàpp ndax yonent yàlla aadama ba ci Sëriñ Tuubaa sallallahu alayhi wa sallam dañu fi indi woon mooy jàng ak jàngale te it ñoo bokk lenn lu doon woote mooy gëm yàlla ak topp ak bëgg xale ñoom ñëpp ñoo bokk lenn lu doon woote xëy na méthode jàngale yi ak jamono yi mooy wuute mooy waral mooy doon jàng waaye ñoom ñëpp dañoo fi indi woon mooy suñu jàng ak jàngale di dënk rek référence bi muy génn da ne dajaa boole bi kër gi nga xam ne tabax naa ko ci yoon waaye la taxoon mu tabax mooy jàng ak jàng na leen jàng ak jàng jërë bu sa nekk moo demee kuréel gi ci loolu la jàng ak jàng ñu ko mën nañ ko déggee ci dégg ni am na ñoo xam ne ko dégg ci dégg ni moo xam ne dafay xat waaye mën nañ ko gën a déggee ci dégg ni moo xam ne nunca sabes. réew la war a xam dafa na ko xam jigéen ñi nga xam ne dana am jafe-jafe jàng nga xam ne ñu bëri bëri ak xamante ci daara yi jàng yi jàng tuuti rek may jigéen boobu mën a xam ne ñu koy maa def loolu biñ gisee loolu méthode la boo xam ne ilée nit ki di ñëw waaye mën nga koo fekk fa mu nekk ba biir fa mu nekk te du ko yàqal ay waaji nga jàngal ko lii nga daan dégg léegi mu ngi la lépp lii moom xew bu ko defee ñi nga xam ñoom lañ àndal ci siyaar yooyu noonu ñu xam ko ñu doon béy di saa ko wala moo moo ko yëgal nga xam yëpp xam ko kon fànn yooyu mooy tënk rek ak lañ jëloon méthode boobu lañ jëloon di saa di saa leen jàng jàngale jàngale ci ay at ay at yoo xam ne euh, def nañ ko am na loo xam ne yu jot nañ cee liggéey xëy na ci mu jëm jëm dañ ko ci leeral jërëjëf sëñ Fallou leeral yi am na solo lool ñu fàttali ne moom mooy ki nga xam ne moo jiite commission culturelle bi ci kuréelu liggéeyal ku tedd gi comme ni mu ko doon leeral rek liggéeyu euh, kuréel gi muy jàng ak jàngale jaarale ko itam ci réseaux sociaux yi ndax dañoo seetlu ne yàqu-yàqu yi bari na te foofu la yàqu-yàqu yi gën a bëree ñu ñu ñu gëm ne bu ñu fa jaaree bay defar lu yàq woon rek mën na faa jaare baax. bokk na ci itam ci li mu wax ne moo leen tax a jóg ñoom mooy def ay siyaara di seeti ñi ñi jaar fi nga xam ne sëriñ bi jaaroon na fa ñu ko daan dégg te daawuñ ko gis ñu mën faa dem xooli ko def ko ci ay vidéo saare ko ba ñëpp mën a xam fii fu mu doon jërëjëf sëñ bi kon xëy na buñ dikkaatee ci yow dinañ la laaj bis bi nga xam ne moom moom ngeen di taxawal mooy lan ak lan mooy sabab beeg yi ci aju yëpp incha allah kon ni ma ko waxee woon rek amaan nañ fi beneen mbokk itam muy sëñ Sawru Kebe sëñ Ibrahima mbokk itam ci commission culturelle bi moom mi nga xam ne moom moo ñu war a traiter thème bi nga xam moo jëm ci euh, alhimma muy thème bi nga xam ne moom la kuréel gi tànn ren fas yéene koo leeral mbokk yi mbokk yi taalibe yëpp ba ñu xam ko ak euh, ni nga xam noonu la ko sëñ bi doon dunde ba ñu xam ko ba bu fekkee ne am na lu ci ñu yokkaat ko bu fekkee ne ña nga woon cooyoonoo tamit ñu xam ne mi ngi noonu kon sëñ Ibrahima Kebe moom lañu jox kàddu gi bu nuyoo bu ko defee ñu leeral tomb yi nga xam ne fas yéene na cee ñëw bu defee ñu jàll ci waxtaan wi kon sëñ Ibrahima ñu ngi lay dalal jàmm لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ginnaaw bi nga xamee ne ñu mbokk yi nga xamee ne ñoom bi di suñ seexonaa mi nga xamee ne moo koy dirigé ak suñ ni yitte day ci yitte ju nit ki moom mu nekk yitte ju kawe nga xam ne kon jëmmi yitte mooy li nga xamee ne mooy tax nit ki jug jëm ci jëf jëf joojee bu fekkee lu mat a yittewoo la ñu ne kon kii yitteem kawe na bu fekkee jëf joojee lu mu lu mu loo xamee ne warifu ko yittewoo la ñu ne kii de yitteem bi yitte ju suufe la yitte mooy li nga xame ne ci la nit ki mën a fexee ba mu leer ko ne ëllëgam nii lay mel nit ku nekk mën naa mën naa taxaw ne man sama ëllëg nangam lay mel ci yitteem ndaxte suñu borom mi nga xamee ne moo bind nit ñi dafa bind ay xeet yu wute daal di jël doomu aadama daal koy bindee noo xamee ne maanaam lépp loo xamee ne bëgg na caa egg ci góorgóorlu ak yitteem pëstéefam mën na caa egg ndaxte dañuy wax ne suñu borom ñetti xeet la maanaam ñetti xeet lim bind lépp day mel ni ñetti étape la étape bi ci gën a foor mooy ñi tuddee ay malaayika ndax ñooñu aw xeet la woo xamee ne suñu borom da leen bind rek nga xam ne maanaam dañ koy jaamu rek nga xam ne maanaam da leen a ay bànneex ak yu noonu malaaka contraire am mooy bahima bu dee suñu borom da ko bind muy lekk kanaan di bànneex rek waaye tegu ko jaam yàlla bu dee doomu aadama nag suñu borom da koy def mu nekk ci diggante bi nga xam ne bu fekkee nit ki dafa nekk am yitte ju kawe maanaam ci ak góorgóorlam ak ci jaamu yàlla mën naa dem ba egg ci daraja yi malaaka yi di nga xam ne ci ak góorgóorlu ak egg ci jege yàlla mën naa dem ba moom ñooy ñooy ñooy bokk mbir waaye ci ak ñàkk yitteem ak yitteem di suufe mën naa dem ba yemook maanaam bahima yi moo suñu borom bi nga xam ne yéefar yi dafa wax ne yéefar yi day maanaam ëmb lu dul lekk ak naan ak bànneexu ñu nga xamee noonu la bahima yi bànneexu ñu bëgg di leen euh, lu mel noonu nag ñu koy dëggal rek ñu dëggal nit ñi nit ñi fi mu bëgg a yegg fii te mën na faa yegg mooy xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa xam leen dañ koy wax xadisu wax ne ñëwoon bi jamono bi nga xam bi sallallahu alayhi wa sallam da leen daan da leen daan xam ne suñ masaana di jaxasoo yonent bi saa dañuy gis ne seen yitte day yokk ginnaaw bi ay jamono ñëw gis nañ ne bu ñu jaxasoo yow dañuy yokk bu baax a baax a baax a baax waaye bu ñu nekkee ci kër gi di jaxasoo nit ñi dañuy yemaat ak ñëpp leen jamono li ngeen di nekk man ne li ngeen di mel bu ngeen ko doon ñun da ngeen dem ba di saafoonteeg malaayika ci malaayika yi ci yoon wi xam ne kon ñoom bu ñu defoon it seen yëpp ñu am ci yonent bi bu ñu ko taxawoon ñu toll danañ dem ba maanaam yem ak malaayika yi comme nga xam loolu day dëggalaat kenn lu mel ne li ñu waxoon te loolu li koy firnde rek mooy suñu euh, sëriñ Ba bi suñu rajo waxna ne ridwan mi nga xamé mo yor buntu aljana day saafonte nak man loxo loxo té ridwan mu lay ko mel waaye nit ko may moy pintu, ju kawe mo dem ba tax digëntém ak digëntém ak lénen li ci borom bind amul yi ñu nit borom mu wax wala def ko fonk bu ko def def nangam wala def bëri jëf ju baax wala ko junni ju baax nga bokk doon lépp lu ci jëf ju baax nga ci maanaam ni mu ko waxee ci suuratul baqara waxewaat ko ci suuratul maayida ne dee leen njëkkante jëf yu baax jëf yu baax nag jëpp jëf joo xamee ne nit ki mi ngi xaar yoonu suñu borom rek maanaam jëf ju baax la te jëf jooju li tax nit ki raw ci mooy fexe ba am ci pësteef am fexe ba am pësteef mooy tax wax dañuy wax ne anas sayyidina anas radiyallahu anhu liggéeyal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu tolloog fukki at yoo xamee ne yonent bi musu musta jëf mbir yonent bi ne ko lii nga def lu tax nga def te loolu lépp ko mooy mooy pësteef bi nga xamee ne daanaka wane ci liggéey bi daan liggéey niki noonu سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدا للمتقين سيمبر من ديلا من دكنت في خير دوج سمي يرمني تنجكنت جفي غا خمين داي ماي نيت مو مانا ام برب تي اجانا جا خمين مانا موي ساكوتي نيكي نونو اي غا خمين مان سي نكو غيس تي القران تامي تكتل لول بري نا لول دانك سيمبر بوغنا تود مانا وقتي داي خات نيكي نونو بوكو تي احاديث ليغا خمين مان سي نتي سوكانيكو muy tegtale xaj maanaam muy tegtale ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana yittewoo soñu julli bi ci njëkkante jëf yu baax ak fexe ba ñu yokk seen yitte ci lépp lu ñuy seq nit ki mooy xadis bi nga xamee ne Buxaari ak Muslim soloo nañ ko jëlee ko ci Abi Hurayra mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na law yaalamu annaasu maa fi nidaai wa safi al awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu wa law yaalamuuna maa fi tahjir lastabaxoo ilayhi walaw yaalamuuna maa fi latamati wasubhi lastabaxoo ilayhima walaw xabwan la atawhuma walaw xabwan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na doomu aadama yi de buñ xamoon li nekk ci fekke sàpp gu njëkk di nekk ci eh, julli ak buñ xamoon yool bi nekk ci fexe ba ñu nodd fekk la jàkka ji ñene buñ xamoon li ci nekk danañ ko njëkkante doon te njëkkante gi sax dana leen poussé ci ñoom ñëpp ñu egseendoo nga xam ne léegi pour ñu texali ko il di ko tegoo bant nga xam ne dañuy tegoo bant ñuy taxaw ci sàpp gu njëkk nga xam ne kon loolu yitte ju kawe la yitte ju kawe la niki noonu it noonu la waxee ne bu ñu xamoon yoon bi nekk ci njolloolu jëm ci jàkk yi danañ ko danañ ko danañ ko njëkkante ndax yoon bi ci ne nga xam ne yitte ju mooy tax nit di njëkkante jëf ju baax niki noonu noonu la waxee ne bu xamoon li nekk ci julli gee ci eh, ci jàkka ak li nekk ci julli maanaam julli fajar jàkka maanaam danañ ko njëkkante donte sax nit ki dañ koy maanaam day raam di dem maanaam dana ko ndax li tax mooy boo xam ne ñaari julli yooyu mooy julli yi nga xamee ne moo gën a diis ci ñi ñuy tuddee munaafiqoon ndax ñoom seen jëf li ci ëpp dañ koy def jëf yi nga xamee ne dañu bëgg nit ñi di ko gis te julli fajar ak julli gee ñaare boo julli nit ñi mën nañ la bañ gis nga xam ne kon léegi jamono ji bëgg nit di la gis jamono jooju kenn du la gis ñoom ñu ci sawar nga xam ne kon loolu xadis la boo xam ne ni man sallallahu alayhi wa sallam daanaka seen yëkkatiwaat seen te pësef ni ñu ko waxee rek mooy ngay jëkkante jëf yu baax yi lépp lu nit ñi di jëf kembal na ci mën bu dee jëmm yéen nag moom ci boppam nekk sampul ci loolu mu daan ni mu ko nekkee mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na xadis bu ñu wax naan boo xamee ne Buxaari xadis boo xamee ne Buxaari solo na ko yonent bi wax ne law anna rijalan min al muslimina law anna rijalan min al muslimina la tatibu anfusuhum an an yataxallafu anni ولا أجد ما أحملهم عليه dafa wax ne wallazi nafsi bi yadihi law anna rijalan min almuslimina la tatibu anfusuhum an yataxallafu anni wala ajidu ma axmiluhum alayhi ma taxallaftu an sariyatin taqsu fi sabilillahi wallazi nafsi bi wallazi nafsi bi yadihi wala wadittu an uqtala fi sabilillahi summa uxya summa uqtala summa uxya summa uqtala xam yonte bi li wax mooy ne giñ naa ci yàlla mi nga xamee ne sama nos gii mi ngi ci loxom bu fekkoon ne xare daa jot jullit ñi bëgg a dem xare waaye yàlla dogal amul lu leen yóbbu te bëgguñoo des gi bu doon mel ne man kese sax maay dem di xar dinaa dem di xar ji donte dañ may rey ci yoonu yàlla dekkal ma rayaan ma dekkal ma rayaan ma nga xam ne loolu li mu tegtale mooy yonent bi wax na ne maanaam man sama egg naa ci li dama koy def dama cee yem man dong dama cee nekk man dong nga xam loolu mooy tegtale ne jëf ju baax maanaam liy piste liy positif liy yitte mooy maanaam nga egg ca foo xam ne da nga yemale yow di ko doxal yow dong ak di ko doxal noog yaa mbooloo nga xam ne kon loolu pëstéef loolu loolu ak dogu la pëstéef la te yooyu yëpp ay baat la yoo xam ne ñoo ma ñoo yam rek li ñu firi niki noonu am na xissa boo xam ne def na ko joxe exemple ci xissatu Salman al Farisi nga xam ne néewaana nit ñi ñuy joxe exemple ci yitte ju kawe di di di dem ci saxaaba yi loolu ne dañ ko andi te xista la boo xam ne xaw naa gudd sax waaye dañ koy tënk rek mooy ne Salman al Farisi dafa nekk dëkkoon ci dëkk bi ñu daan dëkk ci quartier bi ñu daan wax quartier ji léegi nag quartier boobee waajuram mooy ki nga xamee ne daanaka moo moo yilifoon dëkk te dafa nekkoon ko am euh, xam alal la moom ni koo ni moom na dem ab église boo xam ne ni ñu nekkoon ci diine Masiix maanaam nekkoon ci diine Isaa ñëpp nee na ba taxaw jullee ba jant bi sof sama waajur yebal maanaam ñu jël si egsi dana ko ah man de gis naa ñoo xamee ne maanaam la moo gën a wér ba sax loolu sax na ko ko jing ngir di wax mu daal di bind di demaat saam fekk avant loolu da leen laaj ñoom seen diine ji cosaan fan la ñu ne ko boo ci bëggee am lu leer demal saam am na ci la bind su nga xam ne bi mbir moom amee bi ko waajoom jéngee am ñeneen ñu fa ñëw di dellu saam dafa daaj jéng ba ànd ak ñoom dem bi àggee fekk fa benn labbe nekk faak moom nekk faak moom ba kooku faatu mu ne ko nag léegi yow yaa ngi eh, faatu doo ma digal loo xam ne dina ko def yaa ngi bëgg a faatu doo loo xam ne dinaa ko def waaye ji ne ko lii ma nekkoon day moom jaamu yàlla gi ma nekkoon xaw ma ku ci nekk jamono ji loolu jenn waay bi nekk fu ñu wax muusal na nga fa dem nee na ma jógee fa takk sama ba dem foofu nee ma nekk kooku ba muy bulu faatu man ma waxaat ko lu mu ne la ma waxoon kii mu ne ma nekk de xamatuma ku ci nekk na sëy biin léegi dem fa nee na ma takkas ba jógaat foofu dem fa nekk taxaw moom taxaw moom di tër bi maanaam ci jamono jooju rek nee na biñ demee ba ba ba ba ba faatu dikkal ko ma laajaat ko lu mu ne la ma laajoon kële mu ne ma li ma nekk de xamatuma ku ci nekk loolu jénn waay ju nekk fu ñu wax amoriya te ruum nee ma jóge fa dem fa nee na bi mu egsee waajur bi mu demee ba nga xam ne mi ngi bëgg a faatu ma laaj ko ni mel mu ne ma ah, jamono ji de ku nekk ci lii ma nekk lu waaye nag dégg naa ne am na ab yónante boo xam ne aw waxtoom mi ngi jege nga xam ne nag kon nga xam ne maanaam aw mi ngi jege si léegi bu ñëwee ànd ak moom nee na après ma dem. nekk fa nee na waa bi ma waxee loolu ne ma am na yónente boo xam ne jamono ji ñu ngi koy waa ji yónni xaar ko bu ñëwee nga fexe ba ànd nee na ba ma daan ne ma ñu ngi koy yónni fu ñuy wax jasiratul arab ci dëkk bu am i tàndar ma nekk ci diggante ay dëkk nee na bi ma waxee loolu far aw ma gis aw nit bu jógee jasiratul arab nee na ma jox leen jur ga ma gépp nee na dama bëgg ngeen yóbbaale ma rek ma ngeen yóbbaale ma nee na bi ñu ko yóbbaale bi mu egsi bi mu egsee nag ñooñu bi ñu egsee dañ ko war jaay ko jenn waay ab yahud fu ñu wax benn xorosa mu nekk fa nee nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa ba yàlla dogal yu yónni bi suñu borom yónni ko ba mu jógee Màkka war a dem ma nee na nag ci laa toog ci kaw tàndaram gi dégg bi en waay bu ñëw daan ne man waa Ansaar daal jaaxal na ma lu tax ñu sonal seen bopp di dajoo ci jenn waay yoo xam ne maanaam day woote woon ne ab yonente la rek nee na ginnaaw bi ci laa mel ne ku bëgg a daanu ci tàndaram gi ngir tiil ci la ma dégg bi ma wàccee nag di laaj waa mu ne ma yow sa yónni bi demal fa def nee na ginnaaw bi nag ci laa tag seen baax ñëw afamul fii ñu waaji dana moon boo eggee li nga xamee ne boo ko joxee addiyee mu jël ko mbagg ma daa am ab mandarga nee na bi mu ñuy examen ko ci yooyu yëpp ndax bi mu ñu demandé sarax wax ko ne ko lii ma indaale woon gis yonente bi wax saxaaba yi lekk bañ a lekk moom ko addiyee mu lekk ginnaaw gi mu am doon kum doon kum doon denc ci armée mu sol ay yére yu doy ci la ci laa gisee mbagg ma ma xam ne ne moom muy yonente bi yebal ma daal di jaayante ak moom nga xam ne xis sa boobu liñ ci jàngate mooy ne Euh, Salman moom am gi mu amoon alal alali waajuram daanaka loolu jëriñ maanaam lool téewu ko ba mu gisee dëgg maanaam dafa bàyyi lépp topp maanaam di ko sakku ji nga xam ne maanaam dafa ay mbokkam mujj soppali ab jaam ñu jaay ko nga xam ne xaar lu ëpp daanaka fi ko jaayoon rek toog na fukki at ak ak ay jiit loolu nga xam ne maanaam moom dafa dafa dafa dafa yemale manam dee ak manam am limi sakku way waaye du delluwaat nga xam ne loolu li ci war a dégg mooy nit ki mbir mi ni sakku war na xam manam da ko wara sakku sàkk te bañ ci yuqat te xam mbir mu ne du sotti ben bis way yi mooy li nga xamee ne tey nit ki mu yag mu nek ci mbir. jërëjëf xam xamna dañuy baña guddal. Mm-hmm. da melni daanaka ñu dara waaye waaye leer na nañu xëy na liñ ci liñ ci gën a ci gën déggee mooy mhm. himma rek ci buñ ko waxee pour mu gën a gàtt ci ñi koy dégg mooy passeef mooy passeef passeef bu kawe mhm. ak passeef bi nga xam ne ñu moom la ñu xamee ñu murid mhm. waaye loolu waaye eh, comme ñun euh, ay ay ay ay murid lañ di taalibe Seexul Xadim xëy na doon na baax lool ñu am ay misaal wala boog ñu xam lan mooy Pastef mhm. ci ci ci ci sëñ Tuubaa mhm. ci ci sëñ bi mhm. ñu ñu ñu gën ko moo dund bu baax a baax ak sëñ bi naka la doon yére ci Pastef wala boog naka la doon yére ci himma mooy moom naka la ci naka la ko doon dundee ak naka la doon yére taalibe yi xëy loolu boo digg ñu itam dina am solo loolu sëñ sëñ Ibrahima himma ci sëñ mag bi radiyallaahu anhu boo ci bëggee wax daanaka da nga aajoo lu tollu une minute rek ngir xam ne himma ci tasawuf mooy lan ndaxte bu dee himma moom xamle woon nañ ko waaye bu dee moto sayfoon ku ci mel ne sëñ bu mag bi xam ne moom kilifa ci ci yoon wi ak ñoom dañu am seen seen gis-gis yoo xam ne noonu la ñu xamalee himma ñoom ndax bu dee ñoom himma dañ koo xaaj ñetti xaaj yoo xam ne xaaj yi mi ngi topp kem darajay nit ñi ci seenu dogu ndax bu dee ñoom am na lu ñu tuddee himmatul euh, intibaahu wala himmatul euh, bi mooy himmatul ifaaqa am lu ñu tuddee ci ñoom himmatul anafatu ak himmatul alhimmatul aaliya wala alhimamul aaliya mooy ne bi ci njëkk mooy nit ki ji nga xamee ne yeewu na rek ci adduna xam ne adduna amatu solo sóobu na bàyyi na ñim ñi noonu dañu wax ne kon loolu loolu li ko li ko li ci loolu himma la ci lu ñu bañ a guddal ci loolu rek ñaareel bi mooy himma bi nga xamee ne moo ci tegee mooy himma bi nga xamee ne mooy himmatul anaf mooy himma ji tax nit ci ginnaaw bi mu sóobu di jàmm yàlla fexe bay jaamu yàlla di ko sellal fexe ba li muy def mu di ko def te yàlla tax te keneen ku dul suñu borom du toq ci xelam jamono ji muy jëf jëf ji himma ñetteel bi nag mooy ne himma bi nga xamee ne moom mooy ja a kawe nga xam ne maanaam mag mag yi motasay mooy ki nga xam ne koo xamee ne ma ngay jaamu yàlla jaamu goo xamee ne sax sakkuul suñu borom yi waral ko ci ma ngay daw safaan ba daw goo xamee ne du caaga ne daa ragal waaye day jaamu ngir yàlla ngir ne maanaam ab jaam rek nga xam ne loolu bu dee ibnu ajiba nga xam ne moom ci gaa yi la bokk xam ne mi ngi ba mu fi jógee yàggul mi ngi mi ngi génn àdduna mille huit cent neuf dafa waxoon ne himma mooy loo xam ne daa nekk dafa aju rek ci suñu borom nga xam ne moom ni mu ko taxarifee boo ñëwaatee ni ko sëñ bi taxarifee noonu la bu dee himma ci sëñ bi mooy sëñ bi daa wax ne yi toq ci xelum ñett xelum nit ki ñett la dan al himma wal ihtimaamu wal hamu dan himma maa kaanat lillahi aw fillahi fa athaaruha anwaarum xanaa loolu la noonu la xam ne ما كان فآثارها أنواع لأن الهم ما كان للدنيا فآثارها ظلمات وأقدار xam nga ne himma duñ ko xam duñ xam ne sëñ bi daal bu ma doon xam ne himma daal mooy loo xamee ne dafa nekk rek te yàlla tax xam ne dafa nekk rek te yàlla tax jëmmi sëñ mi nag buñ bëggoon a xam ne himma ci jamonoom ak nan la daan tërbiyaay nit ci moom xam ne noonu la xam ne himma mooy ne li tax yàlla yàlla rek tax nga xam ne bu doon jëf jëf jëna yàlla rek tax bu doon am jang na ngay jang te yàlla tax so so ko la nga jàng na ko jëfe manam bu dee and da nga ñu and ak sëñ bi ngir tër bi manam borom na nga mbir mo mo mo jël himmat teg ko da ngay gis na sëñ bi mom lim gis moy na mbir momé na nek rek te tax bu dee nak nim mu daan tërbiyee nit ci himma moy ne bu ñëk tasawuf ñom dañ daan terbié nit ci diko sok sóob moom jaarale ci yoon diko doxlo diko dox gi ñu jublu moy manam jaamu gi muy di ittihaam ngir gën a jege suñu borom té loolu jamono joju jamono bi nga xamné dafa jëgë won yonent sallallahu alayhi wasallam dañu demoon dafa melni nit ñi defar leen dafa yombon ngir né dañoo jëgë won jamono jo xamné bax dafa yomb nga xamné suñu bi la naka da daan tërbiye nit ki tërbiye bu yomb buñ démé ba nit ñi yaq ñu né suñu bi lay gis ab ab ab muritam sax xamné ci aduna rek a ci xol bi xamné ki manam ku ku tayal la ci lañ fas yéene nag soxla euh, ci lañ fas yéene nag di soxla maanaam di tërbiye nit ki ci maanaam taxaw di ko jox ay wér doo xëy mi noonu ngir maanaam sellal ko doo ko mën a tërbiye bi nii léegi nag ba mbir mi eggi foofu bëri am nit ñoo xam ne dañuy askanu ci tasawuf ngir dajale aw nit rek waaye tërbiye tamit ngeen ngir nga dañu leen dajale nii rek di woote ak tërbiye ngir di dund ci ñoom waaye ci la borom xam ne dem ne nag léegi tërbiye bi li amut waaye Ibnu Hajiba ci isaasul himam mu wax na ne loolu ba ko ba ko gaa yi de wax dañoo xamoo dañu dañ doon tëj buntu na tëj ngir nit ñi daan nit ñi daan waaye wax na ne jamono jii ñu nekk sax am na ñoo xam ne ñu ngi tërbiye ci tërbiye ba yonent bi daan tërbiye te mooy tërbiye bil himma daan bëri na ci jamono ji lool nga xam ne sëñ bi avant muy commencé di sóobu ci tërbiye kon day mel ne tërbiye boobu ñu ne moom moo fi des ci la yonent bi ñëwaat ne ko na nga tërbiye sa xeer yi nag na nga tërbiye sa ñooñ wala sa sa sa ñi nga àndal rek ñi la topp nga tërbiye leen nag bil himma bil himma mooy foofu ni nga mën a firee himma def na ko mën a firee ci ne mooy nit ki nañ fexe ba nay jëf nañ fexe ba na bañ a yem rek ci am njàng na nga bañ a rek ci jox ko ab bind mu dem waaw ndax sëñ bi bi mu tërbiyee nit ñi ni ko sëñ Basiru waxee dane da leen daan xamal li ñu war a xam di ba lool dem ba sax ci seen xol bi mu doog leen nag di leen jëfandikoo kenn ku ci nekk mu yëkkati ci sa himma sa yitte ngir nga jëf-jëf joojee te kenn ku nekk jëf jëm la daan jëfloo dala koy jëfloo ba pare di la contrôler di la xool ba xam yow ndax tayeeloo ndax jëf ji yaa ngi koy jëfee yitte ju kawe wala maanaam ndax yaa ngi ci am ay toppale te loolu li tax mu mën ko mooy moom maanaam himma jooju mu mu am maanaam li tax mu mën a tarbiyee ci himma mooy ne loolu dafa daje ci moom ndax li tax mu daje ci moom mooy ne seex bi nga xamee ne day tarbiyee nit ki dañuy sart ci moom ñetti sart sart yooyee himma da caa bokk moo tax suñ basiir wax ne suñ basiir wax ne ñaari xeeti tërbiya la daan tërbiya mooy tërbiya dala daan daan daan nit ñi dañ daan xamal dañ war a xam ba loolu dem ba sax seen xol ndax sëñ bi ni ko sëñ Mouhamed Lamine Diop euh, dagan waxee ci raw na dim dafa wax ne da daan déglu xisay gaa yu baax yi ak daan ko daan ko jéem a def ndànk-ndànk ak daan ci woote ndànk-ndànk bi mu demee ba nga xamee ne himma nag himma ji maanaam jëm himma la wax foofu sultaanul himma bi nga xamee ne dem na ba nga xamee ne moo ëpp doole sëñ bi nag ci la nag woote mbakka jor ga ne képp koo xamee ne nag da àndoon a ñun ngir li nga xamee ne rek ci lañ nekk na nga ànd ak ñun waaye képp koo nga xam rek mooy kon nag mën ngaa seet foo jëm xam ne kon dèjà mi ngi commencé jëm ak nit ñi di leen tarbiyee bil ndax tarbiyee nit ki bil himma mooy nga fexe ba lam jàngoon ci xam-xam mu di ko jëfe nga fexe ba la ko daan xamal ne ko fa la nit daan egg mu jëm fa egg nga fexe ba ba lépp loo xamee ne nit mën na koo am ci jëf mu am ko buñ xoolee dañ gis ne ñu leen daan tarbiya dem na ba tërbiya boobee am na njariñ ndax suñu bis bi wax ne ne amul kenn ku masaana taqoog sëñ bi lu dul ne bu delluwaatee fa dëkk danañ gis ne kii am na ab coppitu dañ gis ne kii jëlee na ci sëñ bi loo xam ne yóbbu ko woon daan am na ñoo xam ne sax yitte ji sëñ daan def ñoom daana tax ba suñ masaana jógee sëñ bi bu dee bay bëgg a ñibbi bay bëgg a egg seen kër maanaam dañuy wàññeekuwaat xam dañuy wàññeekuwaat ñëwaat te sëñ bi ci ci xoqal bu kaaw mi ngi melal aw nit naan mi ngi war melal aw ni naan wa rufqatun waxi waxi ixwaanun lahum himamun maxal wafaa'i bi sidqin fil uxuwaati maanaam melal aw ni naan aw ñooñ lañ woo xamee ne wala am mbooloo lañ woo xamee ne nit lañ woo xamee ne seen yitte dañoo yor yitte ju kawe kawe kawe nekk nit ñoo xamee ne dañoo sell te xoqal bu kaw kenn ku ne xam na ne wax nañ ne sëñ bi bi mu koy taalif xëy na dafa def dafa jëfandikoo foofu secret balaa xam nga ne wax ji mu man na dëppoo sahaba ñi ma andalon maam sëñ ñi ma andalon waye man na dëpp ci sahaba yonent sa sa sallam nga xam ne melo wo xamee ne nekk na ci xasida boko boo ko ci kenn ci ñi sëñ bi andalon dang ko ci mën gis nga xam kon nonu nonu len him noonu leen doon yare ci ma magam doom yi nga xamee ne ñoom la daan andal ñi ci mak de len daan terbiye di len terbiye ci himma ba nga xamee ne kenn ko xamee ne dem nga ba mat mu digal la nga sos dara dem na ba nga xamee ne تربية بوب مدام تربية تنو حنا نمو تربية بين خامين مو بيرهم متى يندي منو دي مم لواي كدنان هو هو المربي بما رب الأمين به حرفا بحرف خامين نيجي نتي ساسن دان آه، يرى صحابي تكم نيجي واحد من نون لسن بدان يرى نيجي نيجي نون كأن تني سن بيار واحد نه هو الغيث والمغياث رب قلوبنا وأجسامنا فالكل صافٍ وناعم حنا نيجي سن بدان مم ما mooy taw boo xam ne taw bu xetaliku xetaliku la mooy ki nga xam ne day xetal daana ñun ñëpp yar nañu yar boo xam ne dem nañ ba léegi képp koo xool ci ñun da nga gis ne nit la koo xam ne nit ku mat sëkk la aj rabba xuluma na nga ne suñu xool dara lu suñu borom du ci toq dara luy wuuteeg yitte maanaam dara luy xeetoo yitte ju suufe du ci ne wa aj saamana mooy ne suñu cër di duñ ko yëkkati mukk ci lu neexul suñu borom niki noonu it boo xoolee si Ibrahima Diop al Mashari bi mu wax rek ci waa kër si ñi nga xam ne moo leen yar di ci wax ci ah dafa jël misaal ci ki gën a ndaw maanaam ci ci ci waa kër si ci ay rakkam ak magam ci suñu masamba xam na ne moom day donte moo gën a néew ay at ci waa kër si waaye yitteem ju kawe bokk na maanaam yitteem moom buñ doon lim yitte yu kawe moom dana ci limal yi di suñu masamba wa in kaana asxaru ixwaani wa in kaana wa in kaana asxaru ixwaani alxadimi maan fa inna himmatahu min arfail himami waaw mu ne bu fekkee ne moom moo gën a néew néew ay at ci zahir ci waa kasin yi waaw mën nañoo xam ne yitte jim am moom moom bokk na ci yitte yi gën a kawe lu mel ne boo jëlee sëñ bi bi mu dem nga ne dafay bàyyi moom Cerno nga xam ne moom la moom la moom la moom la wutaloon daara ji ji mu koy na ne koo xamee ne daa xaw a jëm kanam ci ay at maanaam daal amul at yu bëri yi tax mu mën a yem euh, responsabilité bi toll nañu waaye kawe ak lu mel ne li yonent bi waxoon ne bu ma bu fekkoon ne menn man doon maay xeexe sax donte dañ may rey ci yoonu yàlla lu mel noonu la defaat nga xam ne maanaam donte li ma sëñ bi dénk daa koy yor lu ma ci fekk fekk ma ci maanaam dinaa ko yor jaayante ci li ma mën xam ne kon loolu ak exemple la ma ndaw rek ci ci dundu sëñ bi. Euh, Ibrahima. li nga leeral ci himma wala passeef ak sëñ bi am na solo lool te itam leer nañ misaal yi ñu ci indi tamit leer na mhm. lu ci mel ne bu mujj bi ñu ci mujjee wax rek mooy ku mel ne maam Thierno borom daaru mhm. yar gi ko sëñ bi yar ak mhm. yitte ju kawe ji mu def ci moom passeef bi mu def ci moom ci la xamee ne bu ko bàyyee li mu yoroon bu demee bu dikkaat dara du ci am am kii ak li nga wax ci bayit bi nga xam ne Cheikh Ibrahima Diop wax na ko ci Sëñ Masamba xam ne day mel ne dana ki gën a ndaw sax mhm. buñ ko woon xool day mel ne kon moom mooy moom mooy kii ëpp ëpp ëpp yitte te loolu itam mooy tarbiya bi nga xam ne moom la sëñ bi def ci ñoom mhm. kon loolu am na am am na solo lool mhm. xëy na du buñ ñëw ci sëñ Galas Bamba euh, comme ni ma ko waxee woon sànq moom mi jiite commission culturelle bi ci kuréel liggéeyal ku tedd gi ñoo ni fàttali itam ne waxtaan wi li ko sabab rek mooy ba rabian safar bi nga xam ne ku dee liggéeyal ki tedd gi ñoo ko faral di def at mu jot mhm. di ko waajale màggal gi ren jii di ñetteelu édition bi euh, ñu toog feek ñi nga xam ne ñoo yor wàllu xam-xam ci kuréel gi sëñ Galas Bamba mi ak sëñ euh, euh, Ibrahima Kebe ñu tànn thème boo xam ne moom la ñuy war a waxtaanee di ba mhm. ngir di fàttali di ci fàttaliwaat taalibe yi ak mbooleem koo xam ne bëgg na cee jariñu mm-hmm. kon dañuy ñëwaat ci Sëñ Garas Bamba di ko laaj lan mooy lan mooy sababu ngeen taxawal bis bu mel nii ak benn ko taxawalee ba léegi lan ngeen ci gisagun ci ay njariñ yoo xam ne amal na ko mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ngi koy dund di ko siifur mm-hmm. ak tamit euh, ni ma ko waxee sànq baaxoo ngeen cee tànn ab thème mm-hmm. léegi thème bii ngeen ci tànn ren muy himma pasteef ñu mën koo firee pasteef lan mooy sababu ngeen tànn ko ci Euh, ba ba tax ngeen indi ko di ko exposé nit ñi ak xëy na itam am na yeneen palaato yoo xam ne mën ngeen koo defaat ci thème bi nga xam ne ci lañ jëm incha allah. mooy yitte dañoo gis ni ci jamono nit ñi mbirum ak matériel ñoo gis ne li ñuy ëppalante la ñuy ëppalante ci seen mbir la ñu ëpp lu ñuy wax loolu boo ko xoolee ci mbir àdduna lay jëm te ñu jàpp ne sëñ bi la mu nekkoon moo ci murid yi mooy ñu gën a aj seen njiit lépp luy wut ci lépp luy wut ci àdduna rek loolu loolu lu dagal la nga def ko li ci xayma nga def ko ne yàlla tax ñu gis nag ne am na yoo xam ne lu dagal la nit ñi mënees na koo def mën ngaa jëflante ak ñoom waroo jëf sa xol Mm. tey waroo ko def muy sa yitte ji gën a kawe jëm jëm ko am na ñoo xam ne ci nii ko mën a wax ba jël ay waxtaan ma nekk seen am na ñoo xam ne jël ay gàllaaj am na ñoo xam ne jël naa ma nekk seen day gis ni sax ñu gis ni sax ba jamono ji ñu nekk day gis loo xam ne nombre tàgg boo xam ne nombre tàgg dina la wax yàlla lañ ci waroo nit ki nit ki di gën a faat gis ñuy xëccoo ay imaam nombre tàgg dina la yàlla lañ ci waroo nga gis ñu koy xëccoo ngir koy mm. nga gis ñoo xam ne dañuy xëccoo loo xam ne it ba léegi comme ni ma xam ne mbirum diine waaye la tax ñu koy def yàlla ngir bëgg ku leen xam ngir bëgg a si wala ngir bëgg comme baat jëfandikoo léegi nga gis ni ba léegi euh, nga gis ni loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne mënees na ko saafara ndax li ko waral mooy dégg nga ko suuf bi ñu am ci ñu mm-hmm. gis ni ko nit ñi war nañoo mën a gën a ñi gëlaat seen yitte ngir sax ngir jëmaat yàlla gis ay alxuraan bi nga xam ne mooy wax mooy wax lu mel nii fa am loo xam ne xam nga rek comme ni ko suñu sawul waxee léegi lii tax rek lii xëy na tax ñu tëju kawe mooy topp bànneex xam nga day suñu borom doo xam ne suñu nalee naa su bokk sa sa sa waaye lu mu rek mooy saa yi dama taxawaat loolu du bànneex dund ak dëgg su rek su fekkee loolu mais naa jëflante mu neex dara waaye di nekk ci yàlla moo gën fuuf te loolu moo ëpp mujj te it de toujours dafa war a nekk li nga xam ne seen borom comme li ñu ko def nii dañ ko defee te dafa mel ni misaal boppam mel ci biir dëkk bi ñi aju ci moom nekk ci nekk ci nekk mu ne rek quiero el eh, bueno, eso me que pour leen pour leen ci wax ñu gis ne yooyu yëpp ay gàllankoor la jafe-jafe la ñu ci biir gis na loolu nag warees naa warees naa mën a daje ñi nga daje nag mooy ji wax waa nit ñi comme ni ko leeral li nga xam ne aussi leeral xam ne tarbiya tarbiya da cee bokk xam nga nit ki di jaayoo tarbiya da ngay beral rek mën ko def jàmm yàlla waaye da ngay gis ñoo xam ne seen liggéey ci at bi liggéey bi nga xam ne jàmm yàlla léegi dañ koy def ñu dajale alal liggéey bi léegi day xañ seen diggante ak yàlla loo xam ne ak jàmm yàlla jàmm yàlla bu dee day xañ si diggante da lay xañ ñu bàyyi seen wartee ñu def seen liggéey yàlla waaye fu leen jaamu yàlla musaani nekk mboolem lu ñuy def dem jaamu yàlla waaye ana ki waxuma loolu loolu liggéey dugal ko dugal ko fa am njëriñ waaye dañuy dajale nekk ay yoo xam ne dañ koo dund ci société yooyu yëpp yoo xam ne jaamu yàlla moo nekk musaani bu ñu si liggéey yàlla jafe-jafe jëf sëñ Fallou kàddu yi am na solo lool macha allah mel ne xëy na da doon leeral li ñu waroon a njëkk waaye nag comme leeral na ko rek am na solo te mooy li tax ñu tànn thème bii nga xam ne moom la ñuy waxtaanee te ñu dégg sànq la ci sëñ Ibrahima Kebe wax mooy lu jëm ci alhimma wala Pastef sax ci mu gën gaaw ci baat bi gën a leer mooy lan ak naka la ko sëñ bi daan dunde ak naka la ci yare woon njaboot gi ba tax kenn koo jël ci ñoom maanaam waa kër Sëñ Touba wala boog euh, euh, waa kër Sëñ Touba koo ci koo ci jël dangay jàpp ne moom dong la bi defar li sabab loolu mooy positif ba mu def teew ndax la lam lam def ceew foo ko wane rek mu yoon sëkk waaye boo demee ci kay keneen fekk ca moom leneen loo xam ne da nga naan tamit kii li mu def ci moom boo demoon ci moom mu demee ci xam-xam li mu def ci diw boo demee ci nangam li mu def ci diw kon loolu daa nekk mbir moo xam ne lu am solo la loo xam ne day day gën a dëggal pësteefub sëñ bi day gën a diggalteel ne moom mooy ñi nga xam ne moom ñoom la doon yar ndax Pastef moom weesuwul nga yar mbooloo mu bëree ci moom dong nga defar loolu moom weesuwul Pastef te itam loolu moo tax wax kon nag waxtaan wi am na solo lool macha xëy na dañ ciy leeralaal rek euh, ñi nga xam ne ñoo koy amal mooy kuréel liggéeyal ku tedd gi bis bi nga xam ne moom la ñuy amal mooy bisu Rabian Safar di bis boo xam ne dañ ciy waajal màggal gi di ci amal ay concours yoo xam ne dañ ciy soññ ndaw ñi ngir ñuy gën Euh, euh, euh, liiraat ak di jàngaat lu jëm moo xam gone gu jàng alxuraan la gone gu jàng xam-xam ak gone goo xam ne day gëstu ci sëñ bi ak lu jëm ci xasida yi loolu lañ ciy gën a favoriser ak tamit di ci sargal ak a dimbale ñi nga xam ne gisoon nañ ñuy liggéeyal sëriñ bi ci ci yu bëree bëri lu mel ne ay daayira wala ñoo xam ne ñi ngi ci côté boo xam ne ña ngi fay liggéeyal sëriñ bi te xëy na nit ñi bàyyiwul ñeen xel bu baax a baax indi leen ci bis boobu fa seeni leen sargal ba nit ñi xam ne ñii kat li ñuy def lu am solo la lu ñëpp mën a gis la kon loolu mooy sababu Rabian Safar ñu koy waajal nag ren di mooy ñetteelu édition bi comme ni ma ko waxee woon ren tamit commission culturelle ñu tànnoon ci thème alhimma doon ko waxtaane kon xam naa li ci yi wax am na solo leer na nañ ñi ku ci nekk rek lu tollook ñaari minute wala ñetti minute nga nga nga tënk kàddu gi ci lu gàtt rek ngir ñu mën a yëkkat jotaay bi ngir dafa mel ne dafa xaw xaw a gudd lool kon damay njëkkee ci sëñ Ibrahima Kebe bu ma noppee ñëw ci sëñ Fall bu ko defee mu jël kàddu gu mujj gi leeral itam ñi nga xam ne war nañ leen a sant ci bis bi nga xam ne moom la ñu amal incha allah kon sëñ Ibrahima ñu nga tënkal ñu tuuti rek loo xam ne ma mën nga ko jàppe ci liñ doon waxtaane ci ci mujjantal gi bu ko defee ñu jox sëñ Ibrahima sëñ Galas mu tëj kàddu gi incha allah di ko sant bu baax di dellu santaat suñu fon suñu gelas ci kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na fi léegi na solo lool daanaka liñ ñu doon wax sax ci la dugg eh, waxtaan waxtaan nag daanaka bu ñu ko doon tënk liñ ci déggee rek mooy ne mbir mi nga xam ne sumb nañ ko wala jëpp jëf joo xam ne ne nit ki mi ngi koy jëf da ciy wane positif moo xam ne la moo xam la muy wane positif lu war lu mat a wane la moo xam lu ko matul la comme ni ko sëñ bi waxee rek ne pëstéef mooy loo xam ne daa nekk ci adduna rek maanaam daa daa aju borom nga xam ne kon pëstéef maanaam am solo nga xam ne maanaam moo jar ñu tudd ko mooy loo xam ne dafa aju ci mbirum suñu borom lu aju ci borom nag day aju dundal xam-xam dundal bis yi nga xam ne suñ borom da ko màggal maanaam màggal yi nga xam ne suñu borom da leen màggal fonk li nga xam ne suñu borom da leen fonk boole ko di di di yu mel ni nga xam ne jubluwaay bi mooy tas xam-xam tasaare xam-xam waaye wan nit ñi ak mbaax wan leen maanaam jamono ji lu mu yàqu-yàqu teewut nit ñi mën nañoo fexe ba mbaax gi dafi des wan leen ne ne itte jooju du caaga ne ay jamono rek ca la nekkoon jamono ji jeex na nekk fa neewoon jeex na déedéet waaye suñu borom moo ki nga xamee ne day maye te jamono ju nekk mën na see may nit loo xamee ne ñu ko jiitu woon sax day mel ne da leen a jomb loolu misaal bi ci gën a jege rek mooy sëñ bu bi nga xamee ne ba mu ñëwee dafa ñaan suñu borom boole ko ci ñoo xamee ne ay saxaab maanaam jox ko ay daraja saxaabu maanaam boo def ko jox ko daraja yoo xamee ne maanaam ña ko ña ko nit ñi am na ñoo xam ne jàpp na ne jomm na leen te loolu lu mën a ne ndax suñu borom moom moo ne wa maa kaana ataau rabbika mahduura sama may du ma ko dog mukk lépp loo xamee ne suñu borom taxul du ma ko may nit dagan na ci nit ki maanaam mu bëgg te bu ko bëggee la ko cee jotee mooy ginnaaw bu ko bëggee ba pare nag mu dox jëm ci bañ rek di ko mébét ndax suñu borom dafa ŋàññi mébét wala ta man naw ma faddala law nga xam ne kon li mu bëgg mooy mbir mi nga bëgg li ñuy wax ar rajaaw mooy yaakaar mbir mi ba pare di dox nag jëm ci sabab yi nga xam ne kon lépp loo xamee ne nit ki mi ngi ko sumb ci lu baax rek maanaam bu amee yéene ju sell ba pare dox jëm ci lu mu bëgg rek dana ko li nga ne nañ ko di jox rek suñu jërëjëf eh, Ibrahima kàddu yi am na solo lool mm-hmm. mu mel ni itam am na lu mataleelal lool mooy mm-hmm. nit mën naa am yitte lool ci mbir mm-hmm. fekk ne mbir ma nekkul mbir mu mbir mu mu mën jariñ dara moy mhm. jël poñetum aduna rek def ko muy sa ju kawe donte yaa def la nga man lepp man mhm. nga man nañ ko pas passeef mhm. wala yaa def la nga man lepp waye bukk ak gi ju kawé gi ñu taxaju ñun yitte ju kawe gi ñu taxaju ñun wala pas passeef bi ñu taxaju ñun bi nga xamné mo tax ñuy wax moy bo xamné day jug rek jëm ci yalla te yalla rek tax nga diko mbir mi ngay def wala li ngay sakku wala li ñepp yi ñëkënde nekk lu baax lu jëm ci suñu borom yow na nga def te yitte ju mat sëkk jo xamné da nga nan bu ko kenn doon am sax man rek maa koy am kon xeyna bobu mo gëna tax ñuy waxtaan da mel kon ñi jëw ci sëñ fallu loolu sax li fay leral mhm. ne moy li fi jaaroon léegi sëñ waxoon ne alhimma ma mhm. kana lillah mhm. waaye nak alhamm maakaana li dunia waaw xam xana yitte moy lo xam te yalla rek tax bu de hëmm nak moy ñak rek yoy moy lo xam nang ko acci dunya dunia rek jërëjëf jërëjëf sëñ Sall am na solo kon ñu jox sëñ fallu ma fatali wat ko mom mo jiite commission culturelle bi ñom ñoo amal ñom ñoo amal jotaay yi xamna mu teunk kaddu gi kaddu ngu mujju ak yi nga xam war nako leral leeralaat yëpp inshallah bu ko defee ñu door a yëkkati jotaay bi nghiệp sinh sản mình sản thiện ba ba ba có mình có qua hệ định chi hơn mà bây giờ mình muốn là nhiều bây giờ ngoài rai ba sum để giúp lại ngoài có cái sinh chân thì là có hàng là một cái mà sản thiện chi giúp giúp sao bây giờ mình đi bây giờ mà cái hôm nay có hôm nay có hàng chân nhiều bên bây giờ thì có thể có những cái sản những cái sản những cái sản của mình đi theo bọc ngoài wane jàmbaar yi nga liggéey si waaye caaga bi sax li bëgg na waaye sëñ bi lañ Euh, ñeent ñoo xam ne dañ ko tànn ci ñu wuute kenn koo xam ne jàngalekat Alxuraan lay nekk wala kenn kenn xam ne tànkal lay nekk ak kenn koo xam ne bindkat lay nekk koo xam ne euh, ñu tànn ñoo moom wan gone yi wan mag ñi leen am ngeen ay roykaay yoo xam ne ñu ngi jamono ji ak ak ba léegi mm-hmm. bu ngeen bëggee rek ñii ñoo roykaay ndax bëri xam dañuy fësal ñeneen di ko fësal ci feneen di dépensé alal ju bëree bëri bëri ngir nit ñi mën a gis noonu nit ñi mën leen ñu xam ne sëriñ bi liñ indi mën nañ cee am texe àdduna ak àllaaxira ñaar yëpp mën nañ ko ñu wane ne ñooñu la nga xam ne ñooy jàmbaar yi wane leen wane seen liggéey nit ñi mën ko roy yi nga xam ne dañuy liggéeyal sëriñ bi da nekk ay yoo xam ne ñi liggéey ci xam anam bu mën a doon rek ñu cee liggéey ñu tànn leen ko ñoom mën a ak jëf yoo xam ne te mag ñi lañu bokk nekk ci dund ba léegi nekk ci royukaay yi xam ne ñu bëri ci gone yi jàng xasida wala ñoom la ñu roy ñu génn wàlle wane xam ne ñii ñooy nekk royukaay yi royukaay yi démb yëpp mhm. tey ñoo nekk ñoo nekk wane leen mhm. delloo leen dugal mhm. ngir nit ñi mën ne gën leen a bàyyi xel ba lépp luñ ajoo ci ci àdduna ñu yoroon leen bi li mu war a def moom def na ko kon na ci loo xam ne biir àdduna ñi nga ñoo ñoo bokk ci ko liggéeyal côté boobu ñoo ko war ñoo loolu lañ loolu lañ jëm bés bi nag fii ma mujjee waaye di leen sant ay kilifa yoo xam ne ba waxuma la sax waaye bu kuréel yi taxee ci jàpp ak di ñaan bu baax a baax ci jiital si si ñaan bu rafet ak ñaan lay am ci bis bi di ci delluwaale dukkal ak ak jant boo xam ne xam ne daa koy waxal jël seen biir xol yoo hmm. xam ne ñu jëm ci seen bés yu koo xam ne kuréel bi da ko jàpp jàpp lool bëgg nga xam ne lépp lu lépp lu mosaan laaj da koy def amul ci yéene lool kuréel bi yëpp xam nañ ne ñaan yi ñu daan ñaan yëpp daan daan ko mosaan nga xam ne da ngay fàttali ñu kuréel bi fu mujjee dem dañuy fàttali ko yàlla na ko sëñ Moussa yàlla na ko sëñ sëñ Tuubaa gërëm ak sëñ Abdou Samad Sow bi contribué ci kër moom ba kër gi tàmm na ba léegi dañu di ci duggal loo xam ak xalaat mën naa laa wax rek année bi année bi jàll rek un million la jël dugal ko ci ci ci biir liggéey bi te loolu comme li ñu doon waxtaanee waxtaan léegi année ba ci passé yu yu la bi année bi année bi passé mu loolu day dugg ci li nga waxtaan rek yitte ju kawe am na ci ñoo xam ne ni ñi nga xam ne ñoo ni ñu mënee jël seen xaalis ay milliards ñu ko def lu a mm-hmm. am na ñoo xam ne ñooy nekk xam ne lépp lu mën ci gisaan bu baax ak jàpp lañu ñu koy def kon loolu ñu ko ci sant bu baax a baax di gërëm ñaan yàlla mu doon ko tawfeex pour ñu mucc mm-hmm. ak boo leen koo xam ne rek jàpp moo ci kuréel gi ñu fi nekk lim ñu xam ne seen bopp ñaan yàlla lii ñu jëf ñu def nii mooy yëngu-yëngu yëngu yi ñu def ñu ñaan yàlla yàlla ci am ngërëm ndax ak yëpp leen ba am ci ngërëm ñu ci dara luñ ci loo xam ne ñu àdduna am si ngërëm ci yàlla yàlla yàlla mooy jubluwaay mbir yëpp lépp li amul di yëngu sant baax ci turu kuréel gi yëpp di sant itam ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak ñun saa yu lu mel ni suñu mbokk journaliste yi Al Khadimiyyah TV gi nga xam ne ñoo ñuy defal émission bi di leen sant bu baax ci seenu disponibilité bi nga xam ne am nañ ko saa yu ñeen yëkkatee ci bis yu ak waxtaan yu mel ñu bàyyi lépp luñ doon def ñëw xam ne Sëriñ Tuubaa rek lañ ciy liggéeyal xam naa balaa ñuy tëj rek ñu siyaar ak a ñaanal suñu sëriñ Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké xalifa général des mourides buñ ko siyaaree itam nañ ci tuddaale mbooleem njabootu seexul xaddim gépp njaboot seexul xaddim gi nag mooy mbooleem ku askanoo ci moom ci wàllu daret ak koo xam ne danga aju ci moom ci wàllu taalibe ñun ñëpp sax ay taalibe lañ waaye ñoo ngi ñaanal ñëpp te ñaan tamit suñ boroom may ñu fekkee ak tal ba li nga xam ne moom la ñu dëgmal di ko waajal ñu fekk ko at yu bëree bëri bii ñi ne moom lañ moom la ñuy dëgmal ñu fekk ñu fekk ko te amal leen ko na mu na mu gënee te suñu boobu defal ñu feex ak ni ko ni ko suñu fàllu waxe rek mbooleem luñ ciy def itam soxlu wuñ ci lenn lu dul ngërëmal seexul xadim ndax xam nañ ne bu ñu fayee bëgg dina am aduna ak àllaaxira ndax ngërëmal sëñ moom ñaar yëpp a ci biram kon ñoo ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñoo ngi doon tewlu jotaay bi di sant ñaa suñu meali mbokk yi nga xam ne ñoom lañ daloon ci jotaay bi di sant mboolem ñu koy itam fepp fuñu fuñ ci aduna bi di siyaare ñepp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh 18 safar makkal ku makki gi rabaayi ya fi ixdaami qayl wara badaa وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر